Heavyweight.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 li ñu doon liggéey ci aar jéggi na dayoo def aar fa la nekkoon aar ko bu géejawaay fa la nekkoon ñoo doon yëngu ci wàllu bale it fa lañ nekkoon ay ati ati ati at di fa def seeni activité moom daal dañoo xëy bës rek mairie ba dal di ñëw raser bërëb ba ba mu set wecc dal di leen fay jëlee acteur culturel yi kenn respecté wu leen te boo xoolee structure bu mel ni def aar rek li mu produire ci ay album kenn xamul nu mu toll album yi jaar ci moom buñ ne weddi gis mu flam ji albumu tigirim bi compilation code be albumu kër gi underground pa su may lim duma ko jeexal boole kook salsero yi daanaka seeni album yëpp fa lañ ko doon produire sous région bi naka noonu ñiy yëngu ci wàllu mbalax naka noonu œuvre yi nga xam ne ni groupe théâtral yi doon nañ ko fa def moom boo ko dee konte doo xam ni mu toll liggéey bu toll noonu yépp nag la mairie ba dal di xëy bés raser ba mu set wecc dàq leen jële leen fa ni ay xaaj moo tax fi mu ne acteur culturel yi daan nañu taxawal ab combat ki ci woo seen morom yépp ñu ñëw jàppale leen ndax kan ne nañu yi leen Racine Talla def ormaalul sax Macky Sall mi nga xam ne nii mu ngi teg ay jéego jëmale ci culture moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca mbuur romb na doy waar am mbindaan dal moo fa am doom dal koy suul fekk doom ji mu ngi dund wop wop te nag li ci gën a doy waar ndaw si bu muy def lu ni mel yaayam ci boppam moo nekkoon complice am ndaw si mu ngi woo ci turu Estar amoon jëkkër tàggoo ak moom am ñaari doom moom daal patron bi mu doon liggéeyal moo ko ëmbal ba noppi di lànk naka noonu ndaw si bi mu amee doom bu góor te bi muy wasin ci boppam yaayam moo ko assisté mu dal di wasine ci biir gi bi xale bi juddoo ci la ndaw si ak yaayam dal di ut ay pexe ne nañu ko sàkkal pexe dal di jël xale bi lëmës ko ci ab morso tisi gas ci buntu néeg bi ba mu xóot dal ko ci tabbal suul fekk mu ngi dund ay waay ñi soxor waaye nag mu jul yomb ci ñoom de ndax bi loolu amee ndaw si biir bi dafa toog di metti lu toll ci ñaari fan mettit boo xam ne mënatu koo muñ si la ko yaayam dal yóbboo hôpital ñu dal di koy yóbbu urgence gynécologue bi bi mu ko caytoo xool xool xool dafa gis ne lii du mettitu biir kese ndaw si wasin bu bees la waa na liir ba bi loolu amee ca ñu alerté commissariat bu mbuur ñu ñëw teg loxo ndaw si yóbbu ndaw si bi ñu ko lankete dal koy gësam yëngal mujj naa wax mbir mi ni mu demee yépp ne dafa ëmb jiiñ ko patron bi ko ko teg mu dal di lank ba tëdd ci naaj bi ci la dal di defee li mu def moo taxit procureur bu mbuur mujj naa joxe ay ordre ngir ñu sulli xale bi dal di def ay autopsie yow dal di ëmb suul sa doom moo tax ma ne jàngoro ji njiital réew mi moo gën a graw korona la wax Moussa Bokar Caam defatina maninam Moussa Bokar daal moom ñoxor njaay mu tëj télé ñoxor njaay mu tëj internet Moussa Makiri Karaj te kat nee ñu nit ñi ci boppam dañu am droit ci information te nag réew mu ñuy tëjee ay télé ki internet boo xoolee ba xool ab dictature fa am Moussa Bokar nee na rapp wal fajiri te li ci gën a doy waar yemul ci nekk ne rapp wal fajiri dafa foqati seen licence daal di koy nangu xoolal ma lii ci vingt et unième siècle ñuy tëjji télé di tëjji internet di nangu ay licence yi ci réewum démocratie mooy génn réew mi mu doonoon seen xibaar xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz